bienvenue sur la chaîne Mouhalim TV. Mouhalim TV est une chaîne d'information générale en temps réel. Pour plus d'informations, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'informations. yéen mbokki àddina dal leen ak jàmm ci seen groupe bii di Mouhalim Info Mouhalim Info andi leen Mouhalim TV waral ñuy tàllal loxo mbooleem annonceurs yi moo xam da ngeen am ay communiqué ay avant première vidéo ba ci couverture événement moo xam lu jëm ci wàllu diine la wala wàllu politique ba ci wàllu culture lii lépp jàppandi na fii ci Mouhalim Info ci Mouhalim TV YouTube ba ci Facebook Mouhalim Info jokkoo leen ak sunu service commercial ci 76 396 22 17 wala 78 462 10 wala 33 887 45 98 ak seen groupe bi ubbeeku ñeel bi yépp alhamdulilah rabbil alamin dani alquran yi noo leen di nuyu nuyoo bi alquran jàngale muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ndokkeel sunu bopp ci teew gi ñu teew ci jataay boo xam ne jataay bu ñuy yëkkatee kàddu sunu borom la bokk na ci jataay yi nga xam ne dana tax malaaka jug malaaka lu ko jugloo yombul malaata ci ndigal la nekk guddeeg bëccëg waaye léeg-léeg mu jug nag wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik léeg-léeg ñoom ñu ñëw ci jataay yi nga xam ne dañ fay jibal kàddu sunu borom subhanahu wa taala ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon noo ngi ndokkeel suñu bopp ci jotaay bu mel noonu yàlla indi nu fa di ndokkeel sëñ Abdul Xaadir ci liggéey bu sell bi liggéey bu màgg bi nga xam ne ku xam alxuraan boo jàkkaarloo ak ñaar fukki gone yu mokkal da yëgaale ne coono bu rëy rëy jàll na daa am loolu du wax ci kàddu waaye day wax ci xaal daa am loo xam ne boo ko xoolee dafa am lum lay wax ñaar fukki gone yu mokkal alxuraan coono bu metti bu tar jàll na te xam naa ne jeexagul jàngalekat bu alxuraan bis bi nit di mokkal bis boobu am na kuy dal bis bi nga xamee ne am na ñooy yeew yi ne dañoo mokkal bis boobu am na ñuy soog a dal ñoom xam naa comme sob liggéey damaa jàpp ne darul jeex rek sob liggéey yow jàngalekatu alxuraan du liggéey buy jeex dafa am jenn laay joo xam ne sunu borom subhanahu wa taala daf ko wax ca mujj suuratu Taaha moom lañ bëgg a jëme sunuy kàddu mu wax ca ne wa man arada an dikri wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka wa naxsuruhu yawma alqiyamati ama qala rabbi lima xashartani ama wa qad kuntu basira qaala kadalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadalika alyawma tunsa laay jooju dañ koy romb lu bëree bëri te duñ ci bàyyi xel wa inna kathiran min annaasi an ayatina la gaafiluun dafa am jàngoro ju ñuy wax yëgadi mooy ñàkk a yëg ni nga xamee ne xamadi mooy ñàkk xam ñàkk a yëg li gën ci lu ñu yëg mooy romb laaya joo xam ne la muy wax lu rëy la te bàyyiwoo ci xel suñu boroom yàlla daa wax ne koo xam ne daa dummóoyu daa wan gannaaw lii nga xam ne ci lay fàttalee lañ war a def ak lañ war a bàyyi kooka ak dundam dund gu xat lay doon dund ku karaj lay doon dund gu bari ay jafeñ-jafeñ lay doon waaye dund lay doon koo xam day fees dell ak ay njàqare loolu mooy dunduk àddina te su ëllëgee ca lay gën a mettee mooy bu ma koy dekkil di ko pang di ko booleeg ay moroomam day silmaxa maanaa du gis silmaxa lay doon waaye da cee boole nag bari ay wax ndax day laaj naan yàlla lan moo tax nga pàng ma te gisuma nga xam ne damaa seen ma taman kat bàyyi nekk àddina daa daan xool di gis suñu borom yàlla tontu ko ne dañ laa fay rek sa bor sa bor dong lañ la fay ndax kat la nga xam ne daala koo joxoon mu jaaroon ci jibril jaaroon ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam doonoon basair hada basair nga xam ne moo la waroon a niital wan laa wa waroon laa wan fan ngay teg su tànk ba doo tañaxu doo palamtu bay daanu ci kàmb loola da ko wanoon ginnaaw kadalika atatka ayatuna fa nasitaha mooy nga bàyyi ko noonee nga defoon saa téere bi ba ngay nekk àddina noonee lañ jëflanteeg yow tey jii wa kadhalika al yawma tunsa mbokk yi laaya jooju sunu borom subhanahu wa taala wax ne ku du mooyu an zikri baatu zikri baat bu daw yaram la baat bu daw yaram la sunu borom saa yi ci alxuraan rek da ci wax waxin woo xam ne ku amul xel dañ koy jëlewaat leneen loolu lay wax ci wa man yaachu an dikri rahman xoolal an dikri rahman maanaam xoolal waxut an dikrillah dana an dikri rahman koo xam ne dangaa bémpëñ say gët neexut nga xam ne ni nga war a gise gise woo ko te ni nga war a gise suñu borom yàlla daa jàpp ne ci alxuraan dong nga la war a bàyyi ko alxuraan mooy niitu gi moo lay wan lu ne nan nga ko war a gise lu ne nan nga ko war a gise alxuraan la koy wan loolu moo tax su fekkee ne mbir yi ni ko war a gisee da ngaa niitoo wut alxuraan yàlla dalay jàppee koo xam ne ngaa bémpañ wala mu jàppale koo xam ne ngaa silmaxa borom bi nee na afa man yaalamu annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa ama ndax ki xam ne lii ñu wàcc ci muhammad alayhi salatu wasalam rek kay dëgg ndax kooku mën naa yem ak koo xam ne daa selmaxa kon li muy tekki mooy ci xam ne li yàlla wàcce ci muhammad alayhi salatu wasalam moom rek kay dëgg kooku silmaxawut waaye kan ko xamut borom bi da ko jàppe ko silmaxa léegi nag faaw nu xam ñooñu nga xam dañoo dumuyu alxuraan bu ñu leen gisee yan màndarga mooy feeñ ci ñoom ñu xam ñii wan ginnaaw alxuraan dumuyu ko yan màndarga mooy yi nga xam ne day feeñ ci ñoom bu ñu leen gisee loolu ab tomb la ñetteelu tomb mooy ñu nga xam dañoo dumuyu alxuraan lan mooy seenu pay laay ji lenn la ca ñeent ñeenteelu tomb mooy ñi dëgmal alxuraan nag ñoom lan mooy seeni màndarga ak luy seenu pay bu fekkee ne waxtu wi xat na loolu laa bëggoon a wax euh, waaye man damaa jàpp ne jataayu alxuraan moom diglu alxuraan ci moo tax jataay ba jóg maanaam yëpp boole rek naam na waaye diglu alxuraan xam naa tax jataay bi jóg waaw gone yi ak seen alxuraan ju neex ji ñu ñu ñu ñu koy dégtal dañu dañu dañu sotti yërmaane yàlla daal loolu moo tax jataay bi jóg xëy na nag lii da ci wàll si leegi léegi rek ngir nu gën a xam jataay bii di ko tax a jóg mbokk yi ñi nga xam ne dañoo woon ginnaaw alxuraanul karim ñooñu seeni mandarga ay mandarga yu bëree bëri la danaa ca tudd aslëf benn ñooñu ay nit lañuy doon ñoo xam ne ñu topp bakkan la ñuy doon ay nit la ñuy doon yoo xam ne ñu topp seeni bànneex la ñuy doon watlu alayhim naba alladi aataynaahu ayatina fansalaxa minha ana lu ca topp lu may fa atbaahu shaytaan jàngalal nit ñi xibaaru koo xam ne du ma jaar ci aw turam ndax melowaa itteel mooy daa koo joxoon samay laaya mu daal di koy rocceeku daa cee dañ ba sa jaan joo xam ne daa dañ ci ab deram fan saraxa minha bam ca noppee niitu bam ca noppee jafandu rek la ko seytaane daan di nuus jàpp fa atba'u seytaan muy fa adrakahu fa atba'uhu mushriqin mu daal di koy jàpp téye ko boole ko ci ñi nga xam ne dañoo bew fa kaana min al-ghaawin yàlla tekki ne moom day su ma sooboon danaa ko yëkkati jaare ko ci laayooyu yooyu ma ko jox waaye moom daa am leneen lu ko gënal walaw shi'naa la rafa'naahu bihaa walaakinnahu axlada ilal ardi ah wattaba'a hawaa kon lool li ñu ci déggee mooy ki nga xam ne daa daawan ginnaaw alquraanul karim kooku foo ko fekk kuy topp bànneexam lay doon foo ko fekk kuy topp bànneexam lay doon ndax kat alquran daa ñëw di ñu toppaloo bëgg-bëggum yàlla waaye toppaloo wuñu ba sunu bànneexi bopp fa in lam yastajibu laka faalam annama yattabiuna ahwaahum saa yuñ la wuyuwut ci lii nga leen di woo muy alxuraan xam al bay boo nga xam loolu xam xill ne seen bànneex yi dong lañ topp ñaar moo am bëgg-bëggub yàlla ak sa bëgg-bëggu bakkan ñaar dong moo am bëgg-bëggub yàlla mi la bind ak bëgg-bëggu sa bakkan soo xamee ne dangaa bëgg topp sa bakkan la muy tekki mooy kon doo topp bëgg-bëggu suñu borom subhanahu wa taala loolu moo tax alxuraan daa ñëw dañu bàyyiloo suñu bëgg-bëggi bakkan yi ndax suñu bakkan yi kat xamul te daa réer te moom ab perantal la rek war na su katifli in tuhmilu shabba ala hubbi rabaa'i wa in taftimuhu yanfatim nga bakkan yi mel ne gone guy nàmp sa ndaw gone bu amee ñaari at te féeraloo ko bàyyi ko muy nàmp mën naa nàmp ba ba xëy am fu jar ndax moom day jàpp ne nàmp dama lañu war a def bakkan yi noonu la mel boo ci bàyyi toppaloo woo ko suñu borom yàlla ci lim santaane moom lam xam rek lay topp lam bëgg rek bakkan moom lu neex dong la bëgg bakkan lu neex dong bëgg ak loo xam ne na ci am jàmm jàmm jàmm sax dama ko wax waaye eh, eh, eh, bukk la jàmm ja nga moom la war a am dëgg-dëgg kon ki wan ginnaaw alquranul karim kooku bokk na ci ay màndargaam mooy day topp àddina day topp bànneex ñaareel ba day daw ku koy waar day daw ku koy fàttali yàlla ndax lépp lu koy jële ci bànneexam boobu da koy moytu fa maa lahum an tadkirati mu'ridin mënu leen dal ba ñuy dëddu atazkira mooy li nga xam ne wa innahu la tazkira lil muttaqin daa ñëw di fàttali ñi ragal yàlla lan moo leen dal ñoom ñii ba ñuy wan ginnaaw ani tazkira ni nga ko wane ginnaaw daa mel ne mbaam àll yoo xam dañoo seen ab rëbbu ab daan na yor ak fetal man a fet man a fet lool nga xam du laaxooy nañ koy dawee ka annahum humru mustanfira farat ni moo wat moo fàttali yàlla nga xam ne ku fàttali yàlla day diis gann ci moom kooku itam beneen ba mooy foo fekk ko woon ginnaaw alxuraan jataay yu mel nii du ko fekk xam nga yéen jataay lay fekkee mooy yoo xam ne ay kunnung kunnung dafaa nekk yooyu da koy bëgg lool ci xol ndax xam tax mooy bakkan ko di wi jataay yu nii du ko bëgg day tere kuy wax luy fàttalee day tere kuy dem ci fu ñuy fàttalee wa hum yanhawna anhu wa yanawna anhu borom bi nee na ak ñoo xamante wa in yuhlikuuna illa anfusahum wa maa yash'uruun seen bopp dong la ñuy alak dañ ko yëgul rek beneen bi mooy ki dëddu alquranul karim du xam màggaay màggaayu alquran du ko xam wallahi alquran ab téere la boo xam ne màggaay gi foo ko rek wees na ko loolu laay wax ni suñ tubaa naan maanaa bi foo tekk barke bi ëpp na ko loolu laay wax ci màggaay yi foo tekk barke bi alxuraan barakatul furqaani barakatul qur'aani faaxat la naa jooju ak wax dëgg bi alxuraan kawe na wax na dëgg waaye màggaay gi itam kawe na njort loolu moo tax suñu borom yàlla lu ne wanee na ko màggaayu alxuraan léegi-léeg da ciy giñ wal qur'aanil hakiim léegi-léeg yàlla day giñ ci alxuraan wal quraanil majiid wal quraani li dikr léeg-léeg yàlla tudd alxuraan ci njëlbéenu aw saar tëjaat tëjaat saar wa ci alxuraan fa dakkir bil quraani man yaxaafu wa'iid moom lañ tëjee wal quraanil majiid saad wal quraani li dikr ba ñuy tëj na ne in huwa illaa dikrun lil aalamiin di ko ubbee di ko tëjee léeg-léeg mu ne alif laam miim saad kitaabu waaye booy tëj mu ne wa ida quri alquran fastami'u la day ubbee di tëjee léeg-léeg suñu borom subhanahu wa taala ngir bëggum alquran moom yàlla day wax ci alquran ci benn saar di ci waxaat di ci waxaat di ci waxaat kitaabun fussilat ayatu tanzilum min arrahmani arrahim fala loolu ni neexee tanziilun min arrahmaani rahiim ñu ne ah wax naa doy de mu ne déedéet déedéet kitaabun fussilat aayaatuhu nga ne ah doy na mu ne qur'aan arabiyya li qawmi ya'lamuun nga ne abay na mu ne bashiran wa nadira nga ne waaw yàlla li nga wax ci njëlbeen bi doy na mu daan ne wa innahu la kitaabun aziz laa ya'tiihi al-baatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tanziilun min hakiimin hamiid même saar wi ba yàgg mu ne man qul huwa lilladina amanu hudan wa shifaa même saar wi ba yàgg mu ne sanurihim ayatina fil afaq wa fi hatta yatabayyana lahum annahu al-haq même saar borom bi giñ na giñ yu réeré yoo xam nee na sax jaam ñi xamuñu ko xanaa lu mu doon xam nga lu mu doon giñ mooy téere daa tedd la doon giñ fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu la qasamun law ta'lamun azim innahu la qur'anun karim fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun innahu la qawlu rasulin karim fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idha as'as wasubul ida tanafas innahu la qawlu rasulin karim téere bi ki ko indi sax daa tedd yàlla jox na ko fukki melo yoo xam ne bukkut benn bu ca beddu koon rek xaw a doy nee na téere bi ko ko indi innahu la qawlu rasulin karim li quwa makin inda dil arsh inda dil arsh makin mutaa tamma amin fukki melokaan ci ki nga xam ne moo ko indi ki nga wàcc ci moom nag moom ki ko indi képp da daa yoraale ay daraja jamono jim ñëw daa am daraja ramadaana gën ci weer yi moom kott la yàlla tudd aw weeram ci alxuraan dul dul xeeda doo ko fi gis dul xijja muharram safar rab am ci chef ramadan dama la ci tudd te waxu ci liñ ciy def liñ ciy def muy woor waaye dana unzila fi alxuraan ci la wàcce alxuraan alxuraan jaar rek ak ku ko laal ku nekk rek da ngay amaale tedd moo tax ñi koy jàngale ñoo gën ci kaw suuf ñoom ñooy sëriñ si ñu baal ma de noonu la noonu la demee nag yoon ci yàlla ma xamal moo ne jàngalekat alxuraan ñooy sëriñ si ñoo gën ci kaw suuf xayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama loolu suñu dëkk kub doyul loolu lay doy dama ne jàngalekat alxuraan yi xadis bi bu leen doyul loolu leen di doyati koo xam ne yow yaa gën ci kaw ya ya yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan te ba muy wax loolu ñuy jihaad ña nga fa woon ña daan joxe alal ña nga fa woon teewul mu ne xayrukum man ta'allama ci li ma jàpp mooy yow li ngay jëriñ doomu aadama yi keneen da koo doomu aadama yi am na ñoo ne liñ jëriñ doomu aadama yi mooy luñ sol ay tailleur lañ tudd ñoom am ñoo xam ne liñ jëriñ mooy mooy ñoom ay maçon lañ tudd ñenn ñi dañuy ay oto hmm. waaye yow xam nga li ngay jëriñ doomu aadama mooy wax yàlla nga def ci seen xol suñu ñu indi la ab donga boo xam ne ci ab tax la wàcc ab tax mbaa ab sareet mu ànd ko gaalam di xottu nit xottu nit xottu nit la ñuy indi wallahi aw xottu la ñuy indi wu dara liw nga nekk ca ngoon nekk ca marax nekk ca njël ba mu dañ bokk alxuraan suñu yaara yóbbu liggéey wallahi yaara yóbbu liggéey sëriñ bi ak nit koo xam ne mu dara ñëwutal ci bopp bi ñu indi la ko ngay ijjën moom bii as mi baa Ibrahim ba yàgg muy jàng sumoom ba yàgg muy jàng rabo ba yàgg muy jàng juróomi si ba yàgg mu toog ci jotaay tari fi ab kaamil sa liggéey bi rëy na sa liggéey boobu liggéey bu rëy rëy na moo tax ay milliards jënd ko moo gën addina ak la ci biir qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu huwa xayru mimma yajmaun wa rahmatu rabbika xayru mimma yajmaun moo tax jàngalkati alxuraan yi yàlla bi mu ne yonent yàlla Muhammad dama laa jox téere bu mag da caa teg ne ko kon bul xoolati leneen wala qad aataynaaka sab'an min al-masaani wal qur'aan al-aziim lu ci toog laa tamuddanna aynayka ilaa maa mata'naa bihi azwaajan minhum ki di woon ginnaaw alxuraan du ko diglu diglu ay musique mooy gën a neex fi moom diglu alxuraan ñu baal na ci baat boobu ki nga xam daa woon ginnaaw alxuraan mokkal dara ci alxuraan day wees ci moom boo nekkoon saa doon ci daa mokkal danaan la day day muñ rek jàll a du ko yëg sax donc ñaar fukki ñu mokkal bu ñëwoon fii day mel ne da day day maanaam du am benn yëg-yëg ci ñoom wallaahi la di laay laa du am benn yëg ci ñoom te moo ne ñi ñoo ay ndaw yu amagul ay bakkaar waxi su borom yàlla nekk ci seenu dënn bal hu ayatum bayinaat fi suduri ladina utul ilm waaye ki wan ginnaaw alxuraan kooku du yëg du ko beneen ba mooy du niitoo alxuraan benn ba mooy du saabaroo ci alxuraan benn ba mooy du bég ci alxuraan yàlla ci yàlla musal ñàkk bég ci alxuraan walladina aataynahumul kitaaba ñoom yafarahuna bima unzila ilayk alxuraan dañ ci bég alxuraan dañ ci bég ba àgg ci di bég ci kaamil ci kaamil yi nii di ko xool nii rek doy doy noo liggéey sëñ bi ak a rafet sëñ bi a rafet macha ah, ma ne ko yow sëñ bi jàppe la xarit ba àddina ba àddina àllaaxira lépp jàpp naa la xarit sëñ waaw moom mu ne la mu gisee lii day bég lii gis ko moo gën gis ay milliards wallahi la ilaha illa xeyru yàlla xam na ay milliards yu yu dajale mu ne jël nit nit xaalis yi nag moom bu ñu gis ay milliards <laughs> da ngay gis wax ma eh, mas na maa am ma ma bis benn bis ma jënd ab xaalis ju ko wàññi waaye joxoon xaalis daal koy téye daal ne ma yow xamoo xaalis daal daal da nga koo lem da nga koo lem ma ne yee <laughs> mu ne da nga koo lem yow xamoo xaalis <laughs> ndeysaan ndeysaan ñi nga xam ne dañoo dañoo jublu alxuraanul karim bokk na ca ñoom seen i melokaan mooy dañu am dund bu teeyee teey dañuy ñàkk dépense ba noppi duñ ko yëg xam ne su su boobu ñu dépassé waaye daara nee na ma daa am benn bis maanaam ma ñàkk dépense ñàkk dépense ba yàgg ma ne ah naa tëdd rek tëdd naa ba xaaju guddi. genn waay fukki saa fenêtre ma def na sàcc la ndekete daa am luñ ko yóbbante mu war ma ko def muy dépense suuf ne dangaa dee suuf ron naa la fa yàlla ñu nekk ci liggéey fàttuwu leen benn yoon mu ne leen jàmbaay nag ñu nekk ci ab diir di xaw ci noonu waaye bis bu ñëwee nga xam ne ñëw nañ bu yàlla ñëwee rek nga xam ne suñu projet nee na ku ne lu baax jiguma da nga koo bëgg a soq njaay njaay ku ne lu baax jiguma da nga koo bëgg a soq njaay njaay da nga bëgg lépp sottee doore moo tax ne lu baax waaye ñu nekk ci lu baax te yàgg ci ah ñooñu wax jig na leen demal kokki ñeenti junni doomi aadama di ci benn barab état yuru leen état yuru leen nga xam ne ñoo jaaroon ca daara ji ñoo wut di yoraat daara ji waaw amul dongo bu jógee kokki naan day woote wa jaayidu suñ aas ah, nee na lay woote xam nga lu ko bëgg a la bëgg a dajal milliard ma ne noo yomb yomb lool ndaw yomb milliard bu yomb yomb lay doon ku wooteel yàlla te te te mu dëgg aka yomb mbokk yi maa ngi jeexal ndax jotaay mel nii moom ku ku ci wax loo Xaadim Njaay danga mel ne ku wax loo ku appal ci ay maanaam maanaam da da da dama far dama dama far jeexal nga xam ne da ñu ci am da jeexal ah da jeexal bi rëy rëy rëy dañu ñu ko pat sax lay ko yàlla waaye daal li nga xam ne maam maa ngi koy sàkku te bëggoon bala maa dem ñu dimbali ma ci mooy daa mel ne daara ji daara ju yees la haa antum haa'ulaa'i tud'awna litunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabxal saa borom ne yéen a ngi nii ngi leen di laaj yéen a ngi nii ñu leen di laaj fi sabilillah am na ci ñoo ñoo xam dañoo nay ba may yëpp xalu fa innamaa yëpp xalu an nafsi li nekk suñ poos yi ko génn te yàlla tax wallahi alladi laa ilaha gayruhu koo xam ne sa dërëm génn na dugg fii dan dana amal njëriñ ci sa biir bàmmeel amal ko xam ah. na waaw na dal yow léegi man fii laa yemale waxtaan bi soo fa benn yoon maanaam man dajale bi xaalis yi moom ñoo ñàkk jël kàddu kàddu yi nag ay kàddu sant la rek parce que sëñ Jili mii di wax ni ñun ñoo koy jàppale ci daara ji moom moo nuy jàppal parce que dama koy wax toujours ne ko ñun de duñu ay sëriñu daara mënuñoo jàngale alxuraan wante mën nañ jàpp ci liggéey bi nii ba muy amee ay ndey daara ak yooyu barabu fajukaay yi tamit mën nañ jàpp ci liggéey bi ba nga xamante ni xale yi duñu tawat pour mën a tala jàng loolu moo tax ñun ñuy xar suñu tànk tubéy daara yu bari yu nekk fii ci gox bi parce que dañuy liggéey ak ñoom ci loolu parce que xam nañ ni ñoom yitte woon nañ ko lool te bu ñu sañoon tamit xale yi su ñëwee si barab fajukaay yi tamit ñu bañ faa taxaw su ñëwee rek ñu teel leen set ñu dem euh, li si des mooy ku tax jàng balaa kaatal il faut nga wér bu xale yi wérul duñu mën a am xel bu dal pour mën a jàng moo tax am na programme yu bëri yoo xamante ni dañ koy def fii ci district Touba. dañuy lëkkaloog ak sëriñu daara yi parce que xam nañ ni xale yu bëri ci Touba soo leen soxlaa ci biir daara yi nga leen di fekk te am na sëriñu daara yu bëri yu fi nekk yoo xamante ni dem nañ bañ defal leen ay dees daara seeni daara mooy ay barab yoo xam ne dañ leen di jox yenn comprimé yi ak yenn diagnostic yi ñoom waaw kii nee na moom dees daara la ak ñu bari daal ñu fi nekk damay bañ a lim di jum loolu yëpp pour lëkkaloo ak daara yi pour que daara yi ñu mën a faj xale yi seen xel ñu mën a jàng-jàng bu mucc ay li ci des mooy dafa am benn message boo xam dañ ko bëggoon lancé parce que dañ gis ne daara ji dañ gis ne daara ji dafa am tamit ay ndongo yu jigéen yu fi nekk te am sa doom nga jur ko yóbbu ko mu jàng alxuraan ba mu mot a sëy nga may ko mu sëy loo doon ñaan yàlla mu yàgg ci sëy boobu daal fay sax am fa njaboot wante dara gënul métti nga am sa doom nga jàngaloo ko alxuraan ba mu jàng mu dugg ci néegu sëy yàggul ay yenn jàngoro di génn ci moom te dafa am benn jàngoro boo xamante ni xëy na jigéen ñu bëri sax xam nañ ko moom mooy cancer bi nga xamante ni mooy dal jigéen yi seen butitu njurukaay yi te cancer boobu dafa bari lu mu am léegi ci dëkk bi ci senegal te cancer boobu yàlla dimbali nañ ba nga xamante ni am na ay ñàkk yoo xam ne su ko xale bu jigéen bi jëlee balaa muy dugg néegu sëy yàlla mun na kaa suturaal ba mu dugg ci ba génn àdduna te feebar boobu ñuy wax cancer bi nga xam ne mooy dal jigéen seen butu njurukaay du ko dal kon boog dañuy lancer appel soxna yi fi nekk comme ñoom seen temps xëy na ñàkk yooyu amul woon wala ba mu amee tamit siiwul woon ni mu siiwee léegi yombalul woon comme ni mu yombee léegi dañuy ñaan jigéen ñi xale yi jigéen yi nga xamante ni dañuy am juróom-ñeenti weer juróom-ñeenti at ba fukki at ak ñeent ñu jàppale si dimbali ñu si pour ñu ñàkk xale yi pour aar balaa feebar boobu di leen dal dañoo bëgg fii ak ay at ci kanam na feebar boobu delloo ginnaaw ci dëkk yu développé yi loolu tamit mën na am fii suñu dëkk yi. kon boog ñuy lancé appel dañuy bañ a guddal am na ñu bari ñu war a tari te tamit vraiment ñu ngi ñuy woo feneen dañoo buggoon dem mais ñu ngi jéggalu du baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di wax bu leen ñu fàtte ñaan ci barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf. waaye jëmmi xale bi moo tooy sama xol. mën naa la sa xol rek santal yàlla day wax allahu akbar sant yàlla santal yàlla rek hmm. dëgëral rek macha allah macha allah ndox tuuti may ko mu góox ndox rek bu ngeen amoon ndox foofu tuuti may ko mu góox ndox d'accord am na ndox amul foofu ndox amul foofu maag waay juróom benn lañu woon mu doyloo woon ma ci léppam ma dem ndakaaru dafa jàngale fekk ko fa mu nekkoon ab soldat dem ba yàlla dogal mu libéré nekk ci benn société dafa liggéey muy benn société gardiennage yàlla boole ko ak man fu ma jëm mu ànd ak man mu jigi alquran ji may jàng neex ko lool mu ne ma dama bëgg a fere ji am benn daayira bu nekk ca koñ ba ma doon leen jàngal mu ñëw adhéré ca daayira ba bokk ci waaye bi mu nekkee adhéré ca daayira ba bokk ci teewut dafa maa takk une heure du matin la ñuy te day xëy ma koy jàngal ba mu fer eji mu mujj ne ma damaa bëgg mokkal alquran ni yow te booba mu kàllaf la tool ni man mu ma ko waxee waxaat ma ko ba mu yàgg mu ne ma damaa bëgg laxas dem kokki comme na nga defoon fekk ma ko daan nettali naan ko man damaa laxasoon dem kokki mu ne ma damaa bëgg a laxas dem kokki comme yow ma jéemoon koo yebbi lool ndax booba xam naa ne mag la waaye mu ne ma dama koy def ma jéem ko yebbi ba sonn yàlla dogal mu xëy ñëw takk ay bagaasam yëpp na ma jekk naa damay dem kokki ma tegtal ko jox ko li ma ko war a jox mu dem bi mu demee dajeeg nit mu xamal ko ne ko kokki dafa xaw a metti ci mag ndar ay maga nga fa ay mu kàlla nga fa di fa jàng alxuraan te ngaa dem ndar mu orienté wu dem ndar jàng fa ba jàng fa jus wa am yete bi ba mu jeex yàlla dogal ni ñu xamee daara ak daara yu mag yi ak tumuraanke gu metti xaw koo dab ma woowaat ko mu ñëw ma ne ko sëñ Aliou yàlla li muy dogal kenn xamu ko. mu kàllaf nga xam nga nooy def dangay ñëwaat dakaar nga continuer liggéey takk soxna. Mm-hmm. su la yàlla may njaboot nga fas yéene mu nekk nitu alquran. mu ne ma noonu mu ne ma noonu lay def. dellu si Dakar di liggéey ba yàlla dogal mu takk soxna si di doomu baayam ñu koy sant di sant waa kër gi yëpp. Mm-hmm. ma ñibbi si dak sëriñ bii maa ngi koy wax léegi sëñ maam la keroog bi nga ma dalalee émission bi maa ngi lay wax daara bu ma defoon fukki at bay sëñ Mbàkke mii la ñoo ma jëlee woon ndakaar andi ma Touba sama parcours ñoo ma jaay bi ma ñibbisee Touba sëñ Aliou dafa ñibbisi Touba comme man bi mu takkee soxna si ñëw sama wetu kër ne ma wutal ma néeg ci sa wet ma wutal ko néeg ci sama wet soxna si bu toggee añ day tibbal sama yaay waxtu wu nekk su demee soxna si sama kër lay nekk comme sama goro yaay muy dem di dem ak ñëw ba mu yàgg mu feebar jamono yi muy feebar la ñëw andil ma xale bi na ma alxuraan dong laa ci bëgg. tëdd ndakaaru feebar ñëpp di ko seet. def benn tournée ñëw fekk ma Tuubaa ma damay jàll ci sama yaay su ma ñëwee jàll ci sama kii ñëwaat bi mu demee ñëw tombanteeg xale bi xel mi taxu koo neex lool ma naan ko sëñ fàllu de dafa da xool ba mu yàgg mu ne ko yàlla naa wér. yàlla na wér. daal di dem gisante waatuñ maag moom feebar boobu ci la génnee àdduna. Ah, topp ay nit ci naan ko génneel xale bi nga yóbbu ko école. ay saa soo waxee ma ne ko yéena ko moom yàlla na ko yàlla yërëm. waaye kóolëre gu amoon ak man rek. xale bi ak yaayam ak ay bokkam. firnde nañ ko sama diggante ak ñoom. màggal Tuubaa. aoudu billahi min ashaytaani rajim. bismillahi rahmani rahim. bismillahi ci laay dooree lu may nar a def. mooy tax mu barkeel ba tax ku gis ku yéemooti bismillaahi ci lay dooree lu may nara def mooy tax mu barkeel ba tax ku gis ko yéemooti santaat ko moom mi nu may xéewal gu yi nu am jullil yónneen bi te santaat bamba mbër meeti ma abbiwaat naaru góor njaabal ko seeti basiit sotaat xëlim soosi daa bindaat lu yéemeeti man naa yàlla ngir ak cant ñépp la rawante naa ku mu may quraan nga man kooti mooy buur bu màgg tabaax mooy def itam lu ko soob mooy tànn jaam bu ko neex quraan mu jox kooti góor ak jigéen ci yam muy mag la mbaadi gone ku alxuraan ne fi yow santal borom beeti day téere boobu lëmu lëm ab téere mosti ko lëm ci ay ngëneel moo waral màggam gi fés féeti xéewal gu rëy la ci nun làmbooy xikam yu nu yéem ku ngoy ci moom dana raw te kenn du jot kooti njëkkug ñëwam la xewoon kenn umpalew ko ci nun ak riir gu daj kàpp dunyaa moo ñëw raxas kooti meloo borom bi la di kàddoom yu sell ta leer leeral na dëgg ki neen ba ñépp xam kooti leeral na suñ diine bam leer nu xam ko bu wér lislaamu naa lam yazal di gën yeneen yeeti nañ topp lii mënu wax ciy digle topp gu wér tey wattu lam ñu tere iblis ñu foñ kooti mooy topp yàlla te mooy sunnas yónneen bi nu am te wattu ibliis balaa nuy dellu sànkooti mooy téere bopp ba mu dikkee semmal na téere ya woon maanaam yu neex ya yor maanaam yu neex yamu yor ku jàng gis kooti moo gën ci téere yi wëy moo gën ci téere yi des ngëneel yu rëy yi mu am beneen du am kooti mooy fekk xol bu tilim mu jël ko fóot ba mu set xol bu mu jël ko fóot ba mu set laabal ko sellal ko bam far mujj gën féete baraana koo xam ne daatar lool ca gaay a gëmoon kenn munta wax lu ko doy bëm gëm borom beeti daa sa sayyidina rasulillah mi nu gëm di dóor saxaabaam ya daan kennal borom beeti xuraana dugg xolam tàbbal ca leer gu ñu yéem ba tax mu tuub mujj doon ab sang ba tax mu tuub mujj doon ab sag ci diineeti doy na ca sëkk misaal ibnul xataab mi nu xam sabab bi tax ba mu tuub xuraan la xam kooti suñ mag ñu baax ña fi woon ak may yu rëy ya nu am xuraanu lañ jàppe woon am koom ñu ngoy ceeti cheikhul xadim mi nu am kën zil kitaabi la wax léppam di xuraan la woon nañ jéem a roy kooti daa war nu kon nun itam ñu ngoy ci moom bu dër ñoŋal ko waggar ko ngir ngërëm ñu am kooti taxawlu naata di ñaan buur yàlla buur bi nu gëm mu sàmm waa daara may leen ndam lu fés féeti tey ñaanalaat suñu waay Cheikh Jiili Mbay mi nu am buur yàlla sàmm ko buur yàlla yokk fanam ak wéer mu am kooti tey ñaanalaat suñ sëriñ Cheikh Jiili Mbay mi nu am buur yàlla yokk fanam ak mu am kooti maadaama lii di xorom ci ceebu jën mi nu xam na ñaan gi doon lu fi sax barkeb sëriñ béeti bismillahi arrahmani irrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa sallama tasliman kasira amma baad ginnaaw bi ñu santee sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonenteem bi Muhammad Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di nuyu nuyu jullit bi gën a tedd mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ma leen nuyu maa ngi sant sama borom bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin waaye di sant suñu ñaari suñu ñaari way jur ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu nekk ay jullit waaye ñoom ñoo tax ñu nekk ci alquranul karim kon ñi ngi leen di sant bu baax waaye rawatina suñu way jur bu jigéen bi nga xam ne moo fi nekk ñuy ñaan sunu boroom tabaraka wa taala mu guddal aw fanam lool yokk ak wéram lool yàggal ko fi sunu kanam ba yéene ji nga xam ne am nan ko ci moom suñu borom mottalil ñu ko dama ko ñëpp ñaanalal mu yàgg fi ndax dama bokk ci ñi nga xam ne seen amuñu lu dul seen waajur sawatina waajur bu jigéen suma waajur bu góor daa teel a génn àdduna mu defal ma lu baree baree baree bare kon ñi ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér bu defee kon cant yi ak kàddu cant rek lay doon kàddu gi ci jiitu nag mooy di sant waajuru donga yi waajuru donga yi nga xam ne ñoom ñoo tax ñun ñu dugg ci biir xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ndax mënoon nañu jàng alquran ba noppi am pas-pasu jàngale ko waaye kenn du ñu doyloo jox ñu doomam bañ mën koo jàngal su boobaa bu ñu toogee yam ci yéene kese ah yéene di des na fay waaye pour ñu dugg ci xayru kur ji dana jafe lool kon way juru dong yi nga xam ne moo xam dong bu góor la moo xam dong bu jigéen la ñi ngi leen di sant bu baax cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem su ko defee di peral cant nag gu màgg lool soxna yi nga xam ne ñooy soxnay daara ji nga xam ne ñooy yaay daara yi nga xam ne ñëwoon nañ fii dajale ab enveloppe te dajale ko ci diggante bu gàtt ci pas-pas ci pëstéef ànd ak yéene ci ànd ak ñun bis bi ñoo suñ ci limee soxna ndoog jonn soxna toora bi soxna daba jaxate soxna nday sek soxna xayta kamara ñooñu mën nañoo yóbbaale mbooleem waa groupe ba ñëpp ñi ngi leen di sant cant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ñi ngi ñaan xaalis bii nga xam ne jël ngeen ko muy alal ji ngeen def ko ci alquran ji benn dërëm bu nekk yàlla na leen ko suñu borom fulal ndax mooy man jaa bil ahsana fa lahu ashru amthaliha kon loolu nga xam ne digg na ko ci alquranul karim yàlla na leen ko defal te aar leen seen doom yi nga xam ne ñi ngi fi jàngee ñi mokkal yàlla na alquran nekk seen muur yàlla na alquran nekk seen wërsëg yàlla nañu doon ay nit yoo xam ne dañuy jariñ seen ay wayjur te ay nit ñoo xam ne dañuy jub tey jubale loolu yàlla na ko yàlla def ñi mokk la gut ah bu yoon jeexul suñu di jeex yàlla na leen yàlla tàggatal seeni xel ak seen xool bañ agsi ci jataay bii ba ñu mokkal alquran kon way juru dongo yu jigéen yi seen kol yu rafet yeeg seen sañse yi sant nañ leen bu baax suñu amoon beneen kàddu bu ëpp sant nañ leen danañ leen ko jox suñu amoon geneen kàddu bu gën a rëy jërë ngeen jëf danañ leen ko jox waaye loolu rek lañ man geneen kàddu gu ci dolleeku mooy di leen ñaanal waaye jërëjëf kat sëñ Abdoul Ahad nee na woon baat bu gàtt la waaye lii su ko wax ku deful dara su ko defee kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci biir waajur dongo yooyu nag bi may lim danaa ci limaat keneen muy soxna Anta Cissé moom it day liggéeyee ca hôpital ba dama wutal ko aw tur euh, xaw ma maire yokku bër du xaw ma ñu ngi koy sant bu baax waaye nag yokk bër gi léeg mu am solo fan yi ñëw na ne ma damay yalwaanal daara ji yalwaan ay kii yooyu di dàq ay yoo ba indil ci ay paquet na ma damaa bëgg a yokk nag balaa maa bàyyi damaa bëgg néeg yëpp daj kon meer yokku bër na yeneen néeg yi mat dégg nga incha allah meer yokku bër ñu ngi lay sa nuyu bu baax di nuyu mbooleem juru dong yëpp waaye daal dama bëgg ñu xam ne suñu amoon geneen kàddu boo xam ne dafa ëpp jërëjëf ëpp ñaan dañ ko jël teg ko ci seen loxo ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waaye ñi ngi sant donga yi moo xam donga bu góor moo xam donga bu jigéen man damaa jàpp ne maa fi gën le ay donga ndax ñi génn gun ci daara ji ma gis leen pas-pas bi ñu am ci nangoo jàng ci nangoo jub ci nangoo liggéey waaye wëlbatiku ànd ak bëgg ci man goo xam ne lu ma bëgg ñu bëgg ko dama jàpp ne man maa fi gën i donga suñ daara yi ñu baal ma nag kon donga yooyu maa ngi leen di sant di leen gërëm moo xam ñi jàng ba mokkal génn dem di liggéey moo xam ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir daara ji di jàng ñëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm bu baax bu ko defee kàddu cant rek wax naa ne moom la bis bi suñu xol da cee sadd lool mënuñ cee ñàkk cant mënuñoo ñàkk jàllale ay kàddu cant su ko defee geneen kàddu cant gi ñi ngi koy jëmale ci suñu mbokki sëriñ daara yi mbokki sëriñ daara yi da am na baat yu bari yu ñuy faral di wax su may faral di conférence ñuy wax ne moom day koo ko fay borom sëñ daara yëpp ay teew waaye damaa jàpp ne bor la bu ma leen ameel di ko jéem a rendre di leen ko jox rek waaye nag mel ni ne su doon bor laa leen lebat lebal fay nañu ma ba wis ma ndax dafa mel ni man su ma amee bis benn sëriñ daara du ko bëgg a wuti lu mu xat xat xat dina ñëw ba jox ma loxo wan ma ne damaa am ngànt door a dem kon sëriñ daara yi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ndokkeel maa ngi leen di ñaanal ñooñu nag danaa ci lim ay nit ñu yóbbaale ñëpp ñooñu nag dama ciy jiital suñu groupe boobu ñuy wax ahbaabil quran te mbokki sëriñ daara yëpp dajee fa su ma ko jaaree ci ahbaab rek mu yóbbaale mbooleem ña fa nekk ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye di nuyu nag sëriñ Ousmane Dieng sëñ Mame Balla Gueye ñaar ñii moom damay taxaw ci ñoom ñoom moom bi ma jàppee conférence bi dañoo daal di tëj seen ay daara ñëw ànd ak man liggéey bi fu ma yëkkati ñu yëkkati fu ma teg ñu teg jox ma seen doole jox ma seen alal jox ma seen xel kon nangeen yéeg ne loolu na ngeen ma ñaanal bor boobu sëñ maam la ma am kàttanuk man leen koo fay njëriñ ngeen jëf ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm waaye noonu la ñu sante it sëñ Mañas Ndiaye dégg nañ kàddu yu rafet yi mu doon yëkkati wallaahi moo mel noonu man daa bokk ci sëñ daara yi ma bëgg te naw ko su ma ko gisee damay am cofeel dafa am ay xeeti sëñ daara yoo xam ne man noonu laa mel ci ñoom su ma leen gisee damay am cofeelu xol moom yoru lool ñooñu da cee bokk moom it ngi koy sant ñi ngi koy gërëm bu baax di gërëm mbooleem sëriñ daara yi nag bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn ñi fi nekk suñ ci mënee jël kon sëñ Modou Bousso ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñu ñu baale mbooleem yeneen sëñ daara yi fi des yëpp kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp su ko defee di sant jàngalekat yi nga xam ne ñoom laa àndal xam ngeen ne ñaar fukki dongo yu mokkal alquran ci am at ndax xam ngeen ne daaw fukki dongo ak ñeent xaw ma lañ amoon xaw ak juróom xaw ak ñett ren ñu fexe ba am ñaar fukki donga loolu xam ngeen ne du liggéey kenn kenn nit mbooloo la kon ñooñu nga xam ne ñi ngi ci sama ginnaaw ànd ak man liggéey bi moo xam jàngalekat bu góor la moo xam bu jigéen la ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di ñaanal waaye ni ngi yëg ne rek am nañu sas ndax nit ñi dañoo sas loolu ñooñu nag su ma ci jëlee ah, Fadil li Fadil lay ak Mbay Seen ak Fadil Mbay ba ci baa bu ndaw ñoom ñëpp dama leen di sant di leen gërëm noonu laa jëlee sëñ Abdul Xaadir ak sa Seck ba ci Aliou Mbay mii taxaw ñoom ñëpp équipe lañ bu nekk ci daara ji kenn ku nekk boo xëyee yaa ngi def lu daara ji doxee rek ci ngay xëy ci ngay gont kon ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm suñu demee ci bustaanul aarifiina jigéen ña noonu la jëlee jàngalekat yu jigéen ñi fa nekk soxna maam jaara Fall soxna maam jaara Diop soxna maam jaara ñi ngi ci ci euh, surveillante ba ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di ndokkeel ñi ngi leen di ñaanal waaye nag ñu ñëw ci équipe bi nga xam ne seen liggéey bu am solo moo tax ñu mën a toog di jàng ñooñu nag su ma ko waxee dama ci jiital sama ñaari faatu yi nga xam ne dama ko yàgg waxee ñu baal ma man nag xaw ma nu may def ba am faatu ma ko ñetteel waaye nag yemuma ci nag na ko ñëpp xam kon maa ngi leen di jiital ci cant gi di leen sant bu baax a baax waaye nag lama leen daan wax rek laa leen di fàttale di leen wax dama leen wax ne leen mbana gii ngeen nekk bu leen ko jàppee ab sëy ab sëy mooy ngay dem di toggu cin lu ndaw teg ko cib gaas sóor kilo liibar walla ñaari kilo loolu mooy sëy sëy du taal mbana loolu bu ko kenn digaale ab sëy du sëy dama jàpp ne dañoo ànd ak man di liggéeyal yàlla kon lépp luñ am ci sama diggante ak ñoom yàlla na ko yàlla barkeel macha allah ñi ngi leen di ndokkeel ñoom bu baax a baax a baax bu ko defee di jël fóotkat yi nga xam ne ña nga ca daara ja di setal daara ja di ko setal bu baax ak ñi nga xam ne ñoo nekk ca waañ ba di togg su ma ko waxee rek manoon naa wax ne équipe bi ñëpp kon ñoom it ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel bu baax te di leen ñaanal yàlla defal leen barki waaye ñu baal ma rek kàddu cant yi moom xam naa tey day bari lool su ko defee ñoom bu ma leen santee ñoom ñooy waa daara ji ñu yóbbaale ñëpp su defee ma dellu siwaat ñi nga xam ne ñoom laa dëkkal muy sama dëkkandoo yi nga xam ne ñu fi ñëwee léegi ci ñetti weer la toll waaye dafa mel ni Muhammad ma gàddaayee woon Makka dem Madinatul Munawwara ñu teere ko teeral ko am ci ñoo xam ne dañoo yoroon ñaari soxna bàyyi benn idda jeex kenn ci waa Makka jël ngir yaatal leen dafa mel ni ñoom sama diggante ak ñoom loolu lañ ci doxal kon ñi ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal di am pas-pasu ànd ak ñoom liggéey bi incha allah waaye nag di beral cant nag ci biir sëñ yi ñeneen ñoo xam ne bi may liim ci njëlbeen ndax cant gi moom faaw ñu def ko ay xaaj ñii ma njëkkoon a tudd muy sëriñ Ousmane ak sëñ Maam Balla ñooñu ñoom ñooy kuréel bi njëkk waaye am na ñeneen ñoo xam ne sama diggante ak ñoom dafay weesu li ma sañ ni ma àndeek ñii ni beral dama cay jiital te danañ ma ko nangul mooy sëriñ Omar Cissé ñëw na fi gis nañ ko taxawaay bu rafet rafet ñu ànd ak sëriñ Dia ñu taxaw fi taxawaay bu rafet macha allah ànd ak Makhtar Niass waaye nag ñu ànd ak ñaar ñu am solo lool ci man muy sëriñ Saliou Seck ak sëñ Mouhamad Seck li tax ñu mujje leen mooy ma ne ñaar ñu am solo lool ci man nga xam ne man ak ñoom duñ teqalikoo guddi ak bëccëg man ak ñoom duñ teqalikoo guddi ak bëccëg lu ñu ne maa nga ca lu ma nekk ñi ngi ci duñ suñ xëyee ay yooni yooni yoon miraaran la ñuy déggante téléphone kenn du ci umpale sa morom ñoom it ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di ñaanal ñoom bi bis bi tàmbalee waxtu wu nekk dañ may woo téléphone fan la bis bi toll kañ la yooyu yëpp kon yëg nañ ko sëñ Saliou Mouhamad sëñ Omar ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di ñaanal ñi ngi ñaan ngeen dajeeg ngërëmal sëñ Ahmad Sakhir waaye noonu la demee sëñ Saliou keroog bi talaata jotee dama ko siif maag sëñ Ousmane fekk ko daaraam rek na ko jógal mu jóg ànd ak ñun bi ñu wëree ba ñëw dana ma tayale lan ma ne ko talaata mu ne suba la àllarba jox naa la sama bopp ba àjjuma te noonu mu ko def noonu la ko Mouhamad defee noonu la ko ñoom Maxtaar defee noonu la ko Sëriñ Ja defee nan la ko Omar Cissé defee kon bu ko defee ñu ngi leen di beral kàdduy cant yoo xam ne ci suñu xol lañ ko tubbee ci leen ñaanal lépp luñ dugg yàlla na ci suñu boroom teg loxo bu ko defee kàddu yi ci des nag mooy kàddu waajuru donga yi nañ yëg ne waajuru donga yëpp laa sant seen taxawaay rafet na seen jàpp rafet na li ñuy yëg ci daara ji maa ngi koy yëgandoog ñoom yàlla na leen yàlla dolli seen wërsëg kàddu gi may jeexalee nag mooy yaakaar naa ne sama bokki bopp sama bokki bopp sama bokki bopp su ma ko waxee maa ngi ciy jiital sama ñaari kilifa muy soxna meeg nge mbay ak sëriñ ndongo mbay ak sëriñ xaadim mbay nga xam ne liggéey bi may liggéey jàpp naa ne ñoom laa koy defal ndax comme ni ñu ko waxee suñu way jur moo yoroon liggéey bi di ko def jóge fi ñu jël ko ci ay loxoom ñoom it ñu nekk ci suñu ginnaaw di ñu ci gunge waxtu wu nekk ñu di ñu ci encouragé waxtu wu nekk ñu di ci ñaanal waxtu wu nekk ñu ànd ceeg ñun ci seen man-man ci seen i pas ci lépp yaa mee ngi du ñu gis mukk te ñaanaluñu sëñ donga du ñu gis mukk te ñaanaluñu waxtu wu nekk danaan ñu yàlla ngeen àgg ne aw yoon kon sañ donga yaa mee ngi sëñ xaadim na jàll ba ci njaboot gépp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm bàyyiwuñu kenn suñu ko waxee nag ah, yóbbaale na soxna yenn ci kër ga soxna yenn ci kër ga su ma ko waxee yóbbaale na ñëpp bàyyiwuma kenn bu ngeen gisee sama soxna bopp yi ma ber leen cant gii may cant soxna yi mënuñ cee dugg mooy ñoom li ñuy def ak man ci daara ji dañoo ànd di liggéeyal yàlla ndax nee naa leen ab sëy da ngay togg ñaari kilo benn kilo ak mbana bis bu set dub sëy kon ñoom su may sant liggéeykat yi laa leen di sant waaye noonu laay santee waa kër gi ñëpp tàmbalee ko ci nabu jóob mu yóbbaale waa kër gi ñëpp su dee ci suñ këru bopp gi suma tuddee soxna Awa Samb nga xam ne wax dëgg yàlla liggéey bi at mu ne ma wax ko mook euh, moom euh, soxna Awa Samb mook soxna Fat Sey fii may wax ak yéen sama waajur ñoom ñoom ko yoral su lekkee ñoom la su naanee ñoom la su setee ñoom la sama soxna yi bopp ñi ngi fii ci waar wii di ma fi liggéeyal kon ñoom it maa ngi leen di ñaanal yi huuñ am fi yàlla nañ ko bokk kon ñu ngi sant ñëpp bàyyiwuñu kenn bëgg nañu woon a matal lool nag ba du ñu fàtte kenn waaye wolof day wax ne ku doo matal su ko defee kon ñu ngi sant waa presse bi presse bi su ma ko waxee maa ngi ci jiital waa Rafaay TV waa Mouhalim ak yeneen sites yi fi dajaloo yëpp ba ci ñi nga xam ne yor nañ sax seeni portable di filmer ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ndokkeel waaye di ndokkeel it ñi nga xam ne ñoo féete woon ci wàllu anachid su ma ci jiitalee sëñ Babacar ak Moustapha ñu yóbbaaleel ma nag mbooleem jàngalekat yi nga xam ne jaaroon nañ ci daara ji te de te te marqué fi seen i empreinte ñooñu dama ciy jiital Mouhamed mbay nga xam ne sama jarbaat la moo ne fee ca masalamlasi enri fii na ci Daaru Xudoos daara ji su liggéey bi ñëwee te su meeku ñu ànd ak ñun jiite programme bi liggéey fi liggéey bu rëy kon noonu laa koy jiitalee jaarale ko ci ñoom Mouhamed Guèye ak ñoom sëñ Assane Seye ak mbooleem jàngalekat boo xam ne mos naa jaar ci daara ji rek ñi ngi koy sant di ko gërëm di ko ndokkel bu baax bu ko defee ci biir kàddu sëriñ daara yooyu euh, am na ñaar ñoo xam ne wala ba ñett ñoomit it pëstef ba ràññee ko dana tax ñu tudd leen ñañ cey tudd kañ cey jiital mooy sëñ daara Omar Kane fu daara tàntee ñu gis ko fu daara wootee ñu gis ko kon moom it ñi ngi koy beral kàddu cant moom ak sëñ Fadil Ñang ñi ngi koy sant bu baax a sëñ Abdul Xaadir Bambilor ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di leen ndokkeel bu baax ci turu daara bi may lim léegi waa daara ji ñi nga xam ne ay sëriñ daara lañ tey jàpp ci liggéey bi am na ñetti nit ñoo xam ne danaa leen cité ñoo xam ne sama ay wëllëre lañ ñu jàpp ci daara ji lañ ñu ma def benn lañ ñooñu nag su ma ci tuddee sëñ Ibrahima Dia sëñ Ibrahima Dia suñu wëllëre la woo xam ne suñu xarit la boo xam ne yàlla rek lañ koy bàyyeel keneen ki ci des mooy sëñ Abdoul Ahad Wañaan keroog biñ commencé di wër daa dawal otoom ba ci daara ji mu laajte ma ñu ne ko nekkuma fi mu daal di wax ne mu woo ma téléphone dama sëñ jiili bala ngaa décroché mere naa la ma ne ko ndax lan mu ne ma yow ni nga mel ci ñun ma am oto nga jóg di dox sa yitte di jël taxi loolu moom mere naa la te duma la ko baal ma ne ko demee wut noonu jëluñu taxi damaa tànnoon sa oto ak oto naa ñu ne ban moo ciy gën a jàppandi ñu gis na naa moom am na sëfoor mën nañoo yóbbu toog ca daara ja daara jooy dox te yow yoroo sëfoor boo ñu yóbboo da ngay absenté ca daara ja moo tax ñu bala fi waaye demee wut noonu kon ñoom ñett ci seen tur ñu jiital ci sëñ Ibrahima Dia ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di naa Seexuna Siise biig ci guddi la fi ñëw andi fi ay xéewal yu baree baree bari ak enveloppe bu duun wallahi ñu di ko sant ci turu sëriñ yëpp kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ndokkeel bu baax bu ko defee ci noonu ci la ñuy gërëmee ay kuréeli daara ay kuréeli daara ndax damay wax ne sëriñ daara yi dafa mel ni man dañ maa lebal démb ci waxtu wii la fi sëñ Amdi Jóob ñëw andi fi ay xéewal indi fi ay ñaan noppi na ma waa daara ji suba danañ xëy si mbooloo mu bari la fi yeble naka noonu daara sëñ Ousmane Dieng mbooloo mu bari lañ fi yebale ñoo ànd ak ñun liggéey bi waaye daare sëñ Madi Cissé mbooloo mu bari lañ fi yebal ànd ak ñun liggéey bi kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel bu ko defee sëriñ Sonia bu wañaan moom ni ma ko doon waxee sëñ Ousmane dama koy wax na ko day sëñ daara boo xam ne li nekk ci kaw moo ne ci biir ba mu yëgee sama sànce bi dama ko romb mu jox ma ñaari junni na ma defal ma ko ci wallahi lantin kon ñi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal fa bëgg ak ci alxuraan yal ko fa yàlla mottali sëñ Sonia bu ñu ngi lay sant bu baax di leen ko defee kon xam naa fi ñuy mujj tëjee ñaari tomb rek lay doon benn bi wax naa ko mooy waa koñ bi su ma ci jiitalee suñu mbokki ngéyin yi wax naa ko léegi niñ ñu dalalee yemu wuute wut ak ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rajaanee Makka dem madinatul munawwara nañ ko teero dalal ko damay wax ne borom kër gi bi ma accès la ma ne ma auzu billahi mina shaytaani rajim lamp defaral rajo yi rajo yi neex na rajo yi balaa jël sa bàjjen parce que bi de dama koo téye xam nga daa deew salaam ma téye ko bëgg wàcc la jox la ko macha allah amin amin amin bismillah bàyyi ndonga auzu billahi min asheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen mbokk yi gannaaw ba nu sant yàlla ñu ngi ci sayyidil wujuud sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngi nuyu jullit yi fi teew yëpp di leen siyaara bu baax di leen ndokkeel ci bis bi nga xam ne bésam dundal alquran la ak màggal alquran kon képp koo xam ne teew na fi. ñoo ngi sant yàlla bu baax te di leen sant ci ñëw gii nga xam ne sëñ Abdou Khadir waxoon na leen ko ngeen wuy si ko wuy si bii te moom dañuy wax mag mu ne at mu ne benn galan nga bi ko tëgg moom galanam bii nga xam ne mooy tëgg mooy jàng alxuraan ak jàngale ko ku ko wuy si kon gis na la yàlla yàlla fay leen amiin ñaan yàlla jataay bii ñëwaat ay at yu bare bare bari te ku ñëw suñu borom faj say aajo ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax def sant mbooleem jullit yi fi nekk yëpp góor ñi ak jigéen ñi. gannaaw loolu ñu ngi sant suñu wajur bi nga xam ne mooy suñu kilifa mu leen def si wajur muy soxna xadisi ñu ñaan suñu borom guddal aw fanam lool te wéral ko ndax mooy wajur bi nga xam ne moo fi def ci kër yi mooy suñu wajur amul lu moom boobu la ñuy xoolee wajur yi bàyyi ak ndey yi ak maam yi. kon yàlla mi nga xam ne mooy sàmm yàlla doon na ko sàmm yàlla xaar ko te wattu ko yàlla dimbali ko ba ni bëgg lépp mu defal ko ni mu ko bëggee gannaaw loolu ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne joxoon nañ seeni doom sëriñ Abdou Khadir mii ngir mu leen xamal alxuraan mu ngi leen suñ biir mu leen sant bu baax a baax di leen gërëm di yàlla yal na bare al barkeb alxuraan wàcc seeni doom gannaaw loolu sëñ Abdou Khadir mi ngi sant mboolem bokk yi nga xam ne bokk julit ak taalib yi nga xam ne ñëw na ci barab bii yal na yàlla jàppale leen gannaaw loolu sëñ Abdou mi ngi sant mboolem ay bokkam góor yi ak ak askan bi yëpp jàpp nañ ci bu baax a baax yàlla yàlla jàppale leen gannaaw loolu moom mi ngi sant eh, sëñ Abdou Khadir Mbacke mi nga xam ne muy kalifa sëñ am di di doomi soxna moom Abdou Khadir nga xam ne démb ñëw na fi def na fa rafet rafet rafet jàppale na sëñ jili bu baax a baax wax na fi ay kàddu yu rafet soññee na bu baax a baax kon sëñ jili mi ngi koy sant bu baax a baax di leen sant ki ci ñëpp gannaaw loolu sëñ jili mi ngi sant sëñ Aboo Mbàkke moom sëñ jili Mbàkke moom sëñ Fallu ñëw na fi yàgg na fi lool moom it sëñ jili mi koy sant gannaaw loolu suñ jili mi ngi sant suñ Abdoulahi Mbaye mi nga xam ne sunu xalifa la sooba léegi mi ngi mu ngi koy sant bu baax di ko gërëm suñ jili gis na ni ko jàppee magam ma mooy sunu mag waaye woyex gi tax na ñun ñëpp kenn ku ne danoo def kilifa ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm gannaaw loolu ñu ngi sant mboolem julli yi fu ñu mën a nekk di ñaan yàlla lii yàlla def ci barke te yàlla dimbali julli ñëpp bañ nekkoo benn te ndamal lislaam sunu wurum yëkkati ko ca kaw gannaaw loolu sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne sunu rakk la waxoon naa démb ci ñun ñi ñëpp moon wuur ci alquran ndax sunu wajju da doon jàngal alquran gannaaw ba fi jógee ba léegi sëñ jiri mi moo na wuutu ci ndax ñun bu fekkoon ne nekku ci ñoo ci war a nekk waaye ñun ñëpp la ci nekkal ku am jom la jomam la ci def ndax fi mu jaar ba agsi fii ah. jom ko may ak bëgg ak bëgg rek yàlla yàlla jàppale ko amiin yàlla yàlla musal ko amiin yàlla na àgg niw yoon amiin yàlla bu ma am benn gàllankoor koy xaar yàlla na xat bi amiin yàlla yàlla fekk lu lori bindee fi yëpp yàlla yàlla fegal ko ko amiin ñun amul lu dul moom kontaan nañu bu baax la baax amiin ndax nit ko nit saari nit ñi ñuy xam dañuy am lu ñu dund ci lislaam waxuma la sànq bokkoo ñoom benn waju waaye waaye xaritoog moom wala nga xam ko nag fierté la ci yow kon sant nañu yàlla bu baax a baax bi ñu yàlla boole moom ak bokk te muy ko oyof koo xam ne cër bi mu ñu jox bu faayam du dund cër boobu la ko mën a jox. waaw ah, walaay walaay dëgg bu rëy lay jox ci boppam. bu koor ñëwee di indi ay teraangam ak lu bari ci amuloo ñëw jox ma. lu xew lu ne day ñëw wax ma dama nangam nangam. bu ma ko teg dara waaye toujours muy xool teraanga ju may def. su ko neex wóor na wóor na ñu yàlla ne bu fekkoon damaa ñëw ne ko 200000 laa bëgg balaa tudd dama ko jox. loolu la xam naa cër bu ma jox. ak bëgg baayam moo ko tax. dëgg ndax moom mi wax naa ne baayam waa bi waaj. Ah. li ma mujjee wax nga xam ne moom du mu jax jii li muy Cheikh Abdou Khadir laa ko tuddee. Ah. Cheikh Abdou Khadir bokk nañ ñi ma gën a sopp. sopp damaa bu ma fi jógee. na na nga ko jàppale ba mu wattu alxuraan. kon ndigalal baayam def na ko. loolu baayam la ab soññ waaw ba mu ko xamee ak bëgg a baayam ci la xar ab tànk def lu ne. ba liy bëgg mu def. te. jàngul alquran ngir jàng bi da koo jàng bu baax a baax a baax. waaw ah, dëgg la. waaw li alquran lépp mu xam ko. tajwid lépp lu ci war mu def ko def tafsiram. waaw ah. lépp lu doomi soxna wala nit ku baax di xam xam na ko. ba noppi di ko xamle. wallaay wallaay kon ñun mënuñu ko fay. waaye ñi ko ñaan yàlla biñ ko fàtt ci ñaan mukk yàlla mi nga xam ne mooy dimbali yàlla doolu ko dimbali yàlla laxaa yéen ñi xam ne ay xaritam ngeen te yéen a bokk liggéey mooy jàng alquran yàlla yàlla barke appaan dal leen yàlla yàlla sàmm na sàmm suñu njaboot yàlla yàlla jox résultat bu yaatoo yaatu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñëpp wax amin bismillahi rahmani rahim اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم لك عيشة هنية وميتة سوية ومردا خير مخزي ولا اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن sur la chaîne Mouhalim TV. Mouhalim TV est une chaîne d'information générale en temps réel. Pour plus d'informations, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'informations. yéen mbokki àddina dal leen ak jàmm ci seen groupe bii di Mouhalim info Mouhalim info andi leen Mouhalim TV waral ñuy tàllal loxo mbooleem annonceurs yi moo xam da ngeen am ay communiqué ay avant première vidéo ba ci couverture événement moo xam lu jëm ci wàllu diine la wala wàllu politique ba ci wàllu culture lii lépp jàppandi na fii ci Mouhalim info ci Mouhalim TV YouTube ba ci Facebook Mouhalim info jokkoo leen ak sunu service commercial ci 76 396 22 17 wala 78 462 10 52 wala 33 887 45 98 ak seen groupe Mouhalim Info mooy buntu xabaar bi ubbeeku ñeel àddina bi yëpp.